yéexaay bi nga xamante ni nii lii di bus Tata yi yéex nañu ko tax na ba askan mi di ci gis seen bopp ñenn ñi jàpp ne chauffeur si ñoo liggéeyul ñu ci des daal di ne rek Tata yi dañuy respecter seen heure de départ wante loolee tax ñu tàllal suñu micro chauffeur si ngir ñu andi ci ay leeral. waaw ah, jël temps moom du ci chauffeur yi moom et bus yi ñoom ñooy manqué parce que boo xoolee bus yi bañ fi nekkee ba léegi dafa yàgg ça fait 2011 ba léegi ñoom ñoo fi nekk. légui dafa am bi yu bëri yoo xamante ne fu mu toll dañuy pan té peut-être seeni borom dépanné wul leen légui bo xolé loolu mom moy indi manquement bi client yi mom li ñu jàmbaat mom souvent dëgg la day manqué trop ba ci ñun ñi nekk ci biir liggéey bi di liggéey sax yeen saa da ngay bëgg a sax di xaar benn bus da ngay obligé jël beneen auto ndax manquement bi. ñàkk doy gi nga xamanteni ni tata yi ñak nañ ko doy lolé waral lu ci bari client yi dañuy dankaliko ci auto yi muy mbir mo xamanteni ne neexul client yi. wante ñàkk pexe tax na dañuy yéeg ngir bëgg dem. am na ci ñoo xamante ne dañuy kaas fees bi mais fees bari na ñoo xamante da ngay gis euh, tata bi lu mu fees fees dañ naan dimbali ma ma dugg si am na ñi ci biir nag ñoom duñ bëgg kooku dugg parce que dañuy na fees na dafa war a dem te pourtant ki ne ci biir bu newoon ci bitti bëgg bëgg bëgg tata bi yóbbu ko danaan na taxaw lu mu fees fees ma bokk ci kon dafa mel ne mbir la moo xamante ne ni daal jafe-jafe yi côté boobu moo ci ëppee. Euh, ci biir biir tataay waaye dugg ci tata di foñante di buuxante ak di werante xuloo yooyu yëpp war naa mën a ñàkk ci biir tata en même temps itam li ko ëpp li koy waral mooy mooy mooy tegale bi ñu leen di tegale parce que euh, naan loolu rafetlu wuñ ko kon mën nañoo jël nombre boo xam ne yem na ñuy ñuy fermer seen i porte ba ku bëgg wàcc wàcc bu ñu gisee ku wàcc bu ñu bëggee keneen ku yéeg mu yéeg waaw waaye li may dénk clients yi nga xam ne ñu ngi dugg ci biir tataay daal ñu bëggante fonkante liggéey bi nga xamante ne nii tata yi ñu ngi koy liggéey li ko gën a gàllankoor bokk na ci yoon yi nga xamante ne nii dafa yàqu loolee tax lu ci bari daf leen di jural ay paan ba seeni oto di ci yàqu. suñu liggéey moom maanaam euh, tali bi moom pour pour fi ñuy jaar am nañ problème mu yoon tamit problème mu yoon parce que suñu yoonu bi ñuy jaar gaar bu ndaw dañuy dépanner suñu oto ba pare bu ñu demee gaar dépanner ba pare pax yeeg toj-toj yi ñoo koy yàq suñu ñëwaatee li ñu dépanner woon boo defaatee aller mu mel ne demee woon gaaraas même Daaru Salaam fee am na amoon nañ fa problème ci côté kii bi noonu poste courant bi foofu boo ñëwee daanaka dañ ko daan wër sax di ko teggi da nga fay toj ay pënu wala nga fay dagg ay pati boîte wala nga fay yàq leneen loo xam ne ni boo ko dépanné boo demee garage boo ñëwaatee boo ñëwee la la naqari woon moom boo jaaraatee foofu même chose noonu lay demee wat am yi ñu ngi tàmbalee daw ci atum 2011 looloo tax ay at nii ñu ngi daw màggetaay bi nga xamante ne nii oto yi màgget nañ ko ñoom ñooy waral lu ci bari ñuy baan ba daal di jur yéex bi nga xamante ne nii dañ koy yéex ak si tataay yi ak yàggaay bi nga xamante nii dañ koy yàgg ci arrêt yi ngir mën a départ ba tey bu ñu jàllee ci jafe bi nga xamante ne nii bus yi jafe nañ ko yoon yi yàqu yi lu leen gën di indil gàllankoor ci la bokk.